salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Thiès salaamaaleykum les amis du Caravane Ndogu bi nga xam ni ren la am dixième édition ñu di ko def Euh, comme d'habitude ni ñu ko defee nga xam ne TD bi Thiès distribution bu Thiès bi nga xam le directeur général Pape Diop boole ñoog son gérant Ndiouga Sock chaque année bu day nekk sponsor officiel u caravane dogu bi di ci def alalam di ci def toolam di ci def ay ay ay conseil donc yàlla dogal nag ci biir journée 29 journée yi demee incha allahu rabi di journée TD ñuy ñaan Sénégal yëpp jàpp ci ñu ñëw nag seet si en tant que directeur en tant que gérant en tant que sponsor en tant que partenaire u caravane dogu bi nga xam chaque année bépp activité bu ñuy def ñun ñun association ànd dooleel néew ci doole yi Thiès Ndiougo nekk na suñu sponsor officiel nek na suñu partenaire officiel ndax lu bax looy wax ci daara prison wala silma bokku na ci Thiès premier homme yi nga xamni ñoo ci njëkk def seen loxo ñoo ci njëkk taxawé donc ñugo tay lolo ñëw ñu seet la am def avant première émission suba bi ndax pour wax nit ñi yow fan nga tollu ci caravane fan nga tollu ci yëg-yëg suñu diggante relation ak ñun ak association bi. salaamaaleykum wa Sénégal salaamaaleykum wa Thiès. comme ni nga ko waxee rek euh, Ndoye Baba moom dafa nekk nit koo xam ne yaakaar naa ne loxo moo ngi ci lépp foo fëgg rek di nga fekk Ndoye Baba mi ngi ci biir euh, ah ñu ngi rafetlu euh, li ngay def nii rek parce que aussi tamit du ñëpp la seen loxo jot seen ginnaaw comme ni nga koy defee di yóbbu ci prison yi wala ni nga ko waxee ni ko yóbbu ci école aveugle yi walla hôpital yi loolu lu nice la jox nit mu lekk rek moom da nga ciy am tiyaaba waxuma laaj ay nit nit nga bëgg leen a defaral ndogo gi demee noonu. ñun tamit dañuy jëm ci lépp lépp lu baax lu ñu gis rek lu ñu ci mën a participer ak lu ñu ci mën a def ñu def ko loolu moo waral parfois boo ñu yëgalee yenn yi ñu dugal suñu loxo wax ñu ngi la ñaanal yàlla nga yaa xam li nga ci li nga ciy séntu suñu borom fayal la ko parce que def naa ne moom rek mooy fay gën gi fay lépp loo ci def rek jàppal ni bu mu doon looy réccu nga xam def lu baax moom ala kulli alal mu yàgg-yàgg nga récolter lu lol mo tax ñu gën di duggal suñu loxo ci sey mbir loolu la amon def naan luma ci wara mëna sanni ci cadeau di la encourager rek encore de plus pour nga nga gëna gor góorgóorlu ci ci mbir moomu dal ñun nak mom chess distribution peut-être bon nit ñi xam nañ dal bon ñu li ñuy en tout cas li nit ñi duggal ci suñu liggéey ñun ñu ngi koy séddewaat ak waa dëkk bi. mën naa ne li ñu ci am li ñu bu fekkee liggéey bu ñuy liggéey la pour di ci am bénéfice lenn def naa ni ñu ngi koy delluwaat ci biir dëkk bi wala ñu ngi koy delluwaat ci nit parce que àdduna noonu la quoi ku la xam nga fanaanal nga xam ko olof di waxee nga loolu ko mais nga ne ko ci naaj waaw loolu la quoi mais de toutes les ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla lafal ñu cot jàppale ñu ñu nekk suñu bokk commerçant yi ne ci marché bi yëpp defe naa ñu ñëpp ñooy bokk objectif bu ñuy dund ku ci nekk li sa wërsëg yàlla na ko suñu borom defal ñun ñëpp yàlla na yàlla defal jàmm ngi profité aussi di baale waale ñëpp àq di baal ñëpp àq parce boo ci nekkee di parfois nga am giite ngaas ak sa client wala nga am giite ngaas ak dëkkandoo wala demee noonu mais loolu lépp peut-être ay malentendu yu am la rek mais képp ku gis ni def nañ loolu ndaw man maa ngi wax ci turu kàddu waaw liggéeyukaay boutique bi yëpp képp ku gis ni am na lu ndaw loo xam ni def nañ la ko ñu ngi la ciy jégalu la baal baax te xam ni tamit ñàkk man la rek mais liñu ñu tax a toog fii juste pour bégal leen rek pour bégal client yi ñep yow tamit sa caravane dog bi yalla nga ko yalla yag def yalla yalla def nga gëna am kàttan diko def comme suba ne nga sunu journée la inshallah dina fexé ba nga ku ñew taxaw xamni journée td mo xew. est-ce am nga am nga ci programme bi itinéraire fo xali fi non man mom non non man awma choix awma choix dara awma choix mosquée awma choix fen fum dem en tout cas comme lu bax loy def la rek yow mi nga xamni ya jitt sa caravane seetal fa mu gënee rek nga dik fa dugal mais xam nga tey doo def sab caravane ñëw fekk exemple ñun ñu toog fii di liggéey nga ñëw di jox ndogu doo waaw du am njariñ parce que am na ñu ndogo waaw comme caravane ngay def yaay xool caravane ba ñëkk a mérito loolu ngay defar nga yóbbu ko foofu mais duma ma leen a yóbbul ci daara bi wala yóbbul ci mosquée bi wala yóbbul fii